waaye administration publique tamit war nañoo gën a góor gën a ñongal seen procédure gën a ñongal na ñuy liggéeyee pour gën a am ay yoo xam ne dafay dem jëm ci askan wi gën leen a noppal loolu moo tax sama gouvernement lépp luy xarala yu yees yi ñu koy woowee digitalisation nañ ci def xaalis yu bare bare bare pour yenn yi sax bañ a tee jar nit di déplacé di jóge fu sore pour dem amee ji ko ci administration waaye tamit pour yokk ci transparence boo xam ne kuy def da xam ne li ngay def ñëpp a ngi koy xam ñëpp nga koy gis ba doo ci mën a def loo xam te ne day lor askan wi